noonu ba si monsieur le président Macky Sall am dégg kon man tey damay ñaan yàlla posé candidat dëgg nag waaw. non non taxawal non taxawal candidatif ah. président Sénégal. jànguma yeewu kër mais am naa staff. an sa staff. fi am ba gars dama créé sama parti bu bees bu génn. nu mu tudd. ay na leer. na na leer yow bëgg lëndam na leer. mais yow lii est-ce que waxtaan nga ci ak Abdoulaye Wade. eh eh dama ne kooku Abdoulaye Wade xolam mooy sama xol xol mooy xolam. xam nga tey ma Sénégalais jàppalee. si wàllum caution si sama numéro euh, orange money 77 162 24 89 ba ma am daanaka lu ñu ko waxee 60 millions lu ñu wala lan la di laajte lu ñu ko lu ñu ko waxee si gars yi laa ko laaj ma 40 millions ma ne yàlla ma réew mi. non mais yow li nga wax dafa dafa sa parti ah, may ndax ba may dugg si làmb ji damaa tàggul kenn ji mhm. ñu ne yaa yaa yaa yaa yaa coono la kur ma xëy Ablaye ne woo lee ma yaa loolu mooy coow te loolu yëpp nag waaw. dañuy waxante dëgg rek mënoo xëy xëy rek topp ay escalier bëgg a yegg si kaw si quinzième étage nañu waxante dëgg. mais da jum juum soxna si xanaa ngaa fat ne yàlla am na nee naa man manuma jànguma ma këyit yaa ma dëkk mais yàlla boo ko ñaanee ma may la ma damay ñaan suñu borom na ma yàlla may yaa ma ma yor réewu Sénégal ndax sénégalais lu ñuy dund xam naa ko liggéey naa menuisier lang naa apprenti carré bi rappeur naa football naa def naa lu ne si réew xam la kon boog yàlla mooy maye jàng ba am na staff boo xam ne tey xam dañu may conseillé dama conseillé tey bu ñu xëyee xëy ne yaaw jaay pour la Sénégal réew mi day nax rek tabaa ndax yaakaar naa bàyyi sa xel bàyyi sa xel bi ngay fawee nag dégg nga bàyyi sa xel bi ngay fawee nag yow loolu nga yaakaar barke sëñ Bamba loolu nga yaakaar ah la yàlla maye de dama ni sama xel may fawee dama gëm sama bopp moo tax mosoo dégg ma man sama jëm boobu may toj mbaru cent millions wala may lijjanti mbaru cent millions mbaru man samay cent mille deux cent francs sama cent mille sama deux cent mille dama koo gérer jàpp sama ñaambur yow nag amal say milliards nga seero ko yàgg say mbokk waaye nag am naa droit aw ma nee naa ak sénégalais yi man aw ma mais nañu ma jox ma am 40 millions yaa ma rek ba joxe caution ma nekk président Sénégal am naa esat waaw incha allah barke sëñ Ba